pays euh, bi ñuy imposer léegi pour une importation de plus de cinq cent mille euh, démb gis naa ay commerçant dañuy aéroport ñu doon wax naan euh, mënatuloo jàll douane bi avec plus de huit mille huit mille huit mille huit mille dollars et que ñi nga xam ne dañuy importer soxla xaalis bu bari nañu jarul jarul ñuy ñëw mesure yooyu baax na yow ci yow ci sa gis-gisu commerçant industriel wala bon xam nga secteur bi dafa naqaree waxee ñun li ñu waxoon mooy nañ formaliser entreprise bi entreprise bi boo ko formaliser woon loolu du problème ci moom bu nekkee informel problème la ci moom est-ce problème ci moom man loolu du sama problème parce que su may transférer xaalis banque laa koy jaare du ma ko gàddu hmm. su may tukki sax du ma yor lu mat donc ça peut à la formalisation. mais da ngay formaliser du secteur informel da ngaa war a dafa am accompagnement formaliser kenn du ko forcer ñun dañoo bind président xam nga man dama ñëw ak ay mesures yu leer xam nga la ma fa wax ci affaire chambre de commerce lu ndaw la motul sax ñetti phrase mais la ëpp solo mën naa la ko wax man fii la ma wax ci président pour loo xam ne dama ko discuter ak chambre de commerce onze mesures mooy première. te onze am temps wu onze mesures yëpp. waaw mais dama koy <laughs> résumer. Uh-huh. mën naa ko résumer ci une minute. Mm-hmm. mooy formaliser des entreprises moo accompagner financement ak assiette fiscale ak jàppale leen pour ñu mën a def seen comptabilité beneen bi mooy fexe ba agence yi li ñuy def fusionné ko. boole ko chambre de commerce rationaliser ko mm-hmm. parce que étude ANSD dafa won euh, connaissance des dispositifs d'appui des entreprises chambre de commerce yi moo ko gën a xam. man lu jàppale entreprise maa ko gën a xam ci set ñoom mun tagaa ñëpp maa ko gën a xam parce que dama ko dund waaw beneen bi mooy euh, euh, mise de place de des de des des centres de de des centres d'incubation parce que ñun Kaolack dañ koy def xale yi dañuy ñëw ñu jox leen bureau jox leen bureau jox leen lépp incubé leen duñ fay dara ba màgg ñu ne leen ah boo màggee nag da ngay génn dem keneen dugg Euh, am def ay unité de formation transformation ci jigéen ñi parce que jigéen ñi li ñuy weere seen cere yi ci yëpp nga defar usine boo xam du dara ku ñëw produire ñaari fan dem euh, pilote mise en place des pôle euh, pôle mën nañ ko ndax soo demee avant indépendance pôle de développement yëpp chambre de commerce ñoo ko piloté woon promotion de l'investissement de diaspora ak gestion des infrastructures marchandes parce que bari na ay infrastructures marchandes yoo xam ne nii ñi koy def xamuñ ko nga dikk fii ñu la marché d'intérêt national ah marché d'intérêt national état def ci cinquante cinq milliards jox la suuf jox la yëpp le président de l'assemblée de commerce Dakar mu taxaw naan président def nga ñu ko waaye il faut nga dolli ndax rentable 55 milliards. ñu investir marché d'intérêt national bi kay on se demande lan moo tax finalement ñu. mais parce que ñu ñu def ko. Euh, ku mun a nit lu mu for for te mun a dawal mbaam boo joxee du dem xamuñ ko mais man niñ ci niñ joxoon kër de ville jox ma ko ay bouquet yëpp nekk fa. waxu waxuma ne loolu ña ngi koy gérer bu baax léegi ñëpp. mais dafa mel ni pour pour génn ci sujet bi léegi recherche euh, de financement producteur waa at léegi nag recherche de financement et redynamiser tissu dafa am redynamiser tissu industriel gis nga fii tey boo demee plus de cinquante industries ay textile ay ay huileries ay yu bari yoo xam ne nii avant indépendance bi ñu doon dox mu ngi tëju tey ñu koy importer dañuy aider les collectivités locales pour ñu defaraat marché ak garage loolu la dama ne nag président loolu lépp nag boo bëggee chambre yi man koo def il faut que nag li bloqué chambre yi mooy limitation des mandats xaalis yi nga xam ne nii dañ koy jël waroon ko investir foofu déedéet du subvention yi dama ne ko da dama ne ko dama ko wax ne ko xaalis yi ñuy jël di ko di ko di ko jël di ko yàqate xam nga soo tey ñun bu ñu jëloon chambre de commerce xaalis bi ko COSEC nga jox ko ci 10 milliards par an mais bu ñu demee recycler ko ci banque ji mën a génne 100 milliards d' tout de te dañ koy investir ci investissement boo xam ne nii ñun dañuy rembourser léegi waaw euh, euh, man gis naa nga offusqué wu de tout mais man euh, am na lu ma lu ma <laughs> lu ma offusqué hmm. c'est-à-dire président Bassirou Diomaye Faye dafa def ñaari photo mu def benn ak centrale syndicale yi mu def benn ak patronat bi eh. dara génnewu la ci si génne na ma trop non dara génnewu la ci photo yi am dara lu ci attiré attention lan bu syndicat yi dama ko lu parce que bariwul quatre lañ cinq ah, bu patronat bi on est 17 xam nga moo ci moo ci. waaw te kenn laa la wax. Ah. ah nee naa la fa daje lépp. Hmm. man man rek maa leen ëpp emploi. xam nga moom moo ci man lan moo ci attiré sama attention. Ah. y a pas de femme. ah, ah. pourtant nag y a des femmes. chefs de femmes pat y a des femmes chefs dama lay wax y a a président de patronat y a des patronats les femmes. y ne la non ya non non xaar rek ma wax dama ne la y a des femmes bien sûr mais mais man li ma choqué mooy c'est-à-dire comment le palais un n'a pas pensé à diversifier et puis waa secteur privé bi dem ak borom centrale syndicale yi dem mais dañoo waroon a diversifier mais photo ay góor yi neen. ba pare waaw non waaw man man oh, man man daal nguur gi ragal naa ne may mun a déedéet bu ma may mun a xam nga yow soo bëggee def sa émission defal ah. sa émission ah. yow boo bëggee def sa émission man waxuma loolu man xam nga lu ma la wax ah. xam nga lu ma la wax président toog na ma ne ko fii bari na ñu fi waroon toog te tooguñ man li may wax dama koy wax mu leer dama ne ko ñu fi waroon te dégg na ma bu baax xam nga gaa yi dañu bëgg dañu yaakaar ne man bu ma waxee président dama ko wax pour mu réagir pour ànd ak man mais loolu kon man man am gàcce sax kon man ma am gàcce. mais waroon nga soulever le fait que amul convié wu ñu benn femme responsable. man lu ma ciy wax man man li ma mën a wax xam nga nga may mun a dafa am loo xam ne man mënu ma koo wax man dama naan. ah lu tax mënoo ko wax. non non mën naa am sax du ma xalaatuma ko sax xam nga lu tax non dama lay wax dëgg xalaatuma ko. Hmm. parce que man man su may recruter ci compétence lay recruter nekkuma damay wax nan sama entreprise. soo demee union nationale des chambres de commerce ak euh, union xam nga ñaata nit lañ douze xam nga ñaata góor a fa nekk benn onze yëpp jigéen ñi soo demee cœur de ville de Kaolack les directeurs directeur général jigéen ñi kon man recruter wu ma parce que jigéen la war a góor la ma damay recruter parce que am na compétence man gérer wu ma lool